Euh, la mairie de Dara a multiplié ses efforts pour barrer la route au coronavirus donc euh, loolu nous permet de faire ñu sur le terrain vraiment pour désinfecter le marché Euh, le maire l'a vraiment arrêté interdit marché dimanche daf jours jour repos euh, loolu aussi daf permettre pour que jaaykat yi vraiment bonne a mu permettre ñu également ñi nga xam dañ daan jógee Touba Louga Linguère vraiment di ñëw Daara bu ñu déggee ni marché bi amul bu baax ñu bañ a ñëw fii parce que li ñuy xeex rek mooy jàngoro yi ba ñu dugg fii suñu dëkk parce que démb rek vraiment ñuy annoncé benn cas à te ñëpp xam nañ Linguère ak Daara ni mel rawatina également Louga ni mel ak Daara euh, Touba aussi ni mel ak Daara. loolu moo tax ñun aussi en tant que autorité locale vraiment jël suñu matukaay par par rapport à sa préfet bi mu fi ñëwee dañoo woon les acteurs ñi nga xam ni maanaam ñooy les éleveurs ñu daal di toog waxtaan ak ñoom ñu xool euh, ban pro ban maanaam proposition lañ war a jël si loolu ban dogal lañ war a jël si loolu mais bi biñ gisee ni vraiment éleveurs yi ah, ñoom seen bopp ñoom ñoo ñu proposé que ñu mën dàq dimanche bi. parce que ragal na ni bu dimanche bi amee bu boobaa duñu mën a contrôler li nga xam ñoom ñoo fi ñëw te bu boobaa mën nañoo jot ci feebar bi ñu waxtaanee également ak imam yi ñoom aussi ñu d'accord ne vraiment jumaa yi aussi dañ koy ajani ba si kanam mais nag am na si yenn jumaa yoo xam ne vraiment ñu décidé nañ pour julli mais nag commandant de brigade bi vraiment waxtaan nag ñoom ne leen nañ respecter les mesures barrières ba nga xam ni dinañ mën a julli si norme vraiment yi ko euh, ministre de la santé santé waaw damay inviter vraiment les populations de Daara vraiment ñu respecter vraiment euh, gestes barrières yi nga xam ne ministre de la santé digg na ko vraiment inviter leen pour que ñu jëm seeni matukaay parce que feebar bi nekk na feebar boo xam ni feebar bu am la te feebar la boo xam ni tey xëy na ñun xale ñu si bëri mun nañ si mucc mais mag ñi nga xam ne ñoo nekk si kër yi te vraiment mënuñu déplacer wu te bu leen feebar bi dalee mën na leen a sonal. parce que boo jëlee sa feebar te yóbbul ko say waajur bu boobaa vraiment lor ko leen may lance un appel ñëpp ñu respecté mesure barrière bu ko defee yàlla mën nañu musal ci feebar bi ñun waa daal